Xaasim Ba démb yóbbu nañ ko pour euh, daal di defaat reconstitution des faits ndaw reconstitution bu moom nag euh, euh, ñaq na jooy na def na lépp démb ci bu njëkkandikoo ci xibaar yi ñu ci am ñu ne nag moom Xaasim ci boppam xamle na ni bu njëkk ba ki ne du woon cible am que njëkkoon nekk cible am mu ngi woon ci beneen point ba tey benn établissement bi la mais nee na kooku ba mu demee ba 12h ci vendredi bi daf ko jox caabi bi ak 2 millions recette am daal dina ko damaa xaw a feebar du ma gontu si waat kon looloo tax nag mu changé dem ci kiné mais problème bi li ko waral dëgg-dëgg mooy jeu. maanaam da doon joué ba perdre 1 million 500 ci xaalis boo xam ne bu établissement bi la. joué il fallait que. il fallait que mu mu mu utaat xaalis boo xam ne dina rembourser dette yooyu waaye itam dina mën ngénte ngénteem moom mu ci boppam euh, daal dina xam ne ni 2 millions yi woon ca kees boobu jël na ko booleeg 3 millions 500 yi nga xam ne manqué na ci keesu euh, Kiné dëgg la euh, ba mu ko faatee ba pare dafa dem këram sangu.

Euh, bal beneen jamono loolu war ñu téye ko mais ñeneen ñi nee nañ besoin enquête bi la pour gën a xam ay doxalinu xaasim moom nag nee nañu euh, yéenekaay bi confirmé na d'après proche ngénte bi am na jabar ji solu na woo nañu waykat yi ñu way et tout mais imam bi ci boppam dafa budde nangul tudd xale bi gannaaw bi nga xam ne am na koddee ci noppam ne ko kii ngay tudd baayam moo def ñaawteef kii nit ki démb donc loolu rek lañ ci mën a jàpp rapidement lu ñu xóotal bref bi am nañu nag ñu wax euh, ba def teesu xàmb

et activer la cloche de notification.